برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينام يونس صلى الله عليه وسلم بيان بجي دين دين yàlla fi nekkoon dara nekk seen moom lu kenn xamut ci jamono ndax booba jamono amut ba nga xamee ne bëgg naa amal leneen mu takk ci leeram leer ak jëmmam nekk ko ne na nekkal di mu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam loola nekk di yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jaamu yàlla di jaamu yàlla jiit bu yàgg loolu juróom fukki junne at waaye nattale rek ne booba xataam a gudd ne balaa xataam bis xam ak guddi ak weer ak at yooyu yëpp booba amul de ba nga xamee ne yàlla bëgg naa man mbindéef yi nag mu bind mbindéef yi géej gi la jëkk a bind géej gi ba yàlla bëggee aman mbindéef yi dafa takk seetu wan ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yonent jàkkaarloo boppam ca seetu ba ba gis melawu rafet yi ko yàlla bind ak taar bi ko xotte mu mu xar ñooñ yàlla suñ gisee may yàlla ci seen bopp rek dañuy am kersa seen diggante ak seen borom mu am kersa ci yàlla may yu bëri ñu ko may te ñaq ñaq woo ci la yàlla bind géej gi de moo tax lépp lu yàlla sàkk géej ci ëpp de ba nga xam ji ba nga xam ne tey soob na yàlla ba yàlla bëgg a amal leen mbindeef yaram yii nag nga xam ne ñoo génn ci yonent bi sallallahu wa sallam mu bind ngelaw ngelaw la fuuf géej ba fuufee géej kurit dal di ca génn kurit mooma yàlla waxoon ko bind ca suuf ngelaw loolu di tànqale xeer nga xam ne moo nekkoon ci suuf si te saxat génn ca saxat soo fa ko bind ca muy asamaan yàlla daal di jublu asamaan nag def ko ñuy juróom-yaari asamaan mu walbatiku ci suuf jënd ko muy juróom-yaari suuf rek juróom-yaari suuf yi mi ngi tegu ci kaw géej gi de géej gi mi ngi tegu ci jën wa de aw ko mboolem géej yëpp ci aw jën lañ la la rek jën woowu aw yëkk ko xenu ci diggante ñaari béjjënam yàlla moo bëri kattan aw yëkk wi yàlla bind mu def ci diggante ñaari béjjënam rek jën wi nga xam mboolem géej yi xenoo asamaan ak suuf géej googu jën woowu ko xenoo ba nga xam ne du mën a jaar sax fenn wàcc jën wa jën woowu moom la yonent ne bés buñ demee aljanna mboolem ñu dugg aljanna ñëpp yàlla ñu ci yàlla boole refu refu jën woowu la ñuy xañe keroog de jën woowu aw yëkk ko teg ci diggante ñaari bi jënam de yëkk woowu aw doj la yàlla bind ci duubam mu taxawal ci ñaari tànkam de doj woowu moom la yàlla wax naa ah yaa bunayya in takku misqaala habatin min xardalin fa fi saxratin aw fi samawaati aw fi lardi su nekkee ci xaw doj wala mu nekk ci asamaan wala mu nekk ci suuf loolu wan na la ne woowu doj du doju asamaan du doju suuf ndax yàlla tudd na ko tudd asamaan tudd nga xam ne moom doj wi dana moo xeenu yëkk woon waaw doj woowu nag asamaan fii nga gis mu féeteeg ñun yàlla bindu ko nii ñu koy gisee dafa xonq asamaan yi juróom-ñaar lañ waaye yii féeteeg ñun dafa xonqoon ci cosaan waaye nag doj wi nekk ci suuf géej gi moo moo ko moo ko moo tax waaw moo tax mu mu mel nii mu mel gulo waaye gis boo xamee ne waa adduna tukki na waaw nekk del ci cosaanam asamaan fii dañuy janoog moom mu xonq cër moom la yàlla wax naa sabtaanoon war da tan kattihaani asamaan keroog dafay dellu xonk cur waaw mel ni démb démb fee noonu la mbindee fi tegalooyee waaw ci suuf asamaan yi juróom yaar tegu ci kaw suuf yi juróom yaar waaw sidratul tegu waaw aljanna tegu arasat kursi waaw tegu aras nag mooy mbindee fam yàlla mi nga xam ne lépp lu yàlla bind ci ronam la nekk de ni ki nga xam ne fii ci àdduna lépp lu fi nekk yaa ngi ci asamaan mboolem li yàlla bind yëpp ñu ngi ci ron arase aras am na juróom-ñaar téeméeri junne ci suraabiqaat ci suraabiqaat bu nekk la ca nekk ci ci mbindeef moo ëpp mboolem ñu nekk ci asamaan juróom-ñaar suñu juróom-ñaar waa am bayti maqadis ak bayti maamoor waa géej gi yëpp de yooyu yëpp nag yàlla leen bind rek ngir màggaay yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de di yàlla bindee yooyu yëpp ba bëgg a fañ ca àddina nag bésab di ci la yàlla sañ ci àdduna de bind asamaan seeg suuf si waaw ak samp garab yi moo tax ba tey ñuy taamu sañ ci guddi ak jibéer de al ci la yàlla bind jant leen weer rek di jiw yi sant leen ñuy dox moo tax ba tey kuy tukki di taamu tukki guddi ak al ci ne de talaata yàlla bind jur gi waa ak bàyyi wi waa ak njaa yi daganal tuur seen deret moo tax bisab talaata ñu di ko taamu ci bisab deret moo tax kuy xarfalat waaw kuy nampatalaw yooyu talaata la ngay taamu de alarba yàlla bind géej gi daganal ñu di ko naan waaw moo tax muy jëfat naan garab de waaw alxames yàlla bind aljana ak safara te loo aljana ragal loo safara de muy jëfat ñaan yàlla ajjuma yàlla bind aadama waaw ca faas mu gis mu bind xawaa jabaram may ko de moo tax ajjuma di jëfat sëy aadama mi nga ne mboolem li yàlla bind yëpp moom la ci tànn mboolem li yàlla bind yëpp aadama la ko bindal ak ci doomam asamaan ak suuf ak li ci nekk adduna ak alaaxira lépp lu fi yàlla doomu adama yi rek ñoo ko moom dañoo koy jëriñoo rek ñooy jëriñoo suuf bi ñooy jëriñoo garab yi ñooy jëriñoo jur gi yi jën ci jéeg mënul leen a raw ci ci jaww mënul ko raw waaw ndax mooy xalifa yàlla ci suuf aadama moomu nga xam nag ne moom la yàlla tànn muy xalifa yàlla ci suuf yàlla tànnewu ko dara lu mooy mooy bàyyi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek mooy yi ñu bind ci nelaw yonent yàlla waaw doomu aadama jooju ci tudd yonent yàlla Muhammad lañ ko bind bopp bi mi ngi mel ni niim la waaw ndax mi aadam dellu la yi di la tànk yi deel la de koo gis muy doomu aadama rek Muhammad mu taxaw la de waaw nataal alayhi wa sallam bi nga xamee nag ñoo tax yàlla bind mbindeef yi moo tax ñoom la yàlla bëgg mujj moo tax bi yàlla bind yëpp yi aadama la mujj bind de moo tax yonent na sallallahu alayhi wa sallam yàlla bind na yëpp tànn ci aadama waaw mu dajale doomu aadama yëpp tànn ci bani kinaanata de waaw bani kinaanata itam mu tànn ci ñoom arab bani arab mu tànn ci ñoom bani kinaanata bani kinaanata mu tànn ci ñoom waaw Quraysh Quraysh mu tànn ci ñoom bani haasim bani haasim nag mu tànn ma ci ñoom de man maay lu ñu tànn ma bàyyi koo ci lu ñu tànn bàyyi ko ci lu ñu tànn bàyyi ko ci lu tànn te jublu ma puukare ci loolu de maay sangat lépp lu aadama jub te loolu sama tiitar de loolu du tiitaram kat ana luy tiitaram mooy nekk gam nekk rek di jaamam yàlla de bu dee jaamam yàlla waaw loolu mooy tiitaram ba gën waaye su nekkee di sangam bi léegi kooku kooku tiitar la bu rëy waaye daal day ni nekkam gi nekk di jaamam yàlla de yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam moo tax yàlla may aadama di ko may yàlla def aadama muy xalifaam ci suuf digal malaaka yi di ko si jootal mboolem malaaka yëpp si jootal nañu aadama iblis bañ iblis mi bañ jaamu na yàlla koo nag ko sabre ji tuub jaamu na ko yàlla junne at nekk na bëkk néegu aljanna ñeent fukki junne ci at jihaad na juróom benn fukki junne waaye ba mu waxee ne ba yàlla nee nañ si jootal aadama malaaka yëpp nangoo si jootal aadama moom mu bañ ne du ko si jootal moo gën a aadama jala ko yàlla génne ko aljanna génne ko asamaan araamal ko asamaan ak aljanna rëbb ko moo képp ko ànd moom safara lañ gëm de kooku mooy iblis yàlla daal di def aadama muy xalibaam di ndey joral yàlla def iblis muy noonu aadama waaw de képp ko ànd ak texe képp ko ànd ak iblis texe di rek texe waaw ba nga am na nag aadama wàcc na ci suuf ah, jabaram Awa ëmb na ñaar fukki biit biit bu ci nekk ay féex lañ góor ak jigéen buñ màggee góor ga nekk ca biit bëre mu may ko jabar doom ja nekk ca biit bëre doom ji jigéen ja nekk ca biir bëre doom ji jigéen ji ca biir bëre mu may ko góor ga ca biir bëre de noonu la aadama doon féeram ci ay doomam wuute ji bi rek booba moo taxaw taxawaayam wuute xabkal yi ci tar abdul aadama de booba yàlla bu gën a mbindee fi soxta tey euh, leen ñeneen nekkuñ de séen nañ judante ba nga xam ne aadama deewut lu may gis ne kii doomam ak kii sëtam téeméeri jinne de ñoo xam ne ñoo dundal suuf de aadama waaw soo ko deere yàlla nag waaw gis aadama gis fu mu taxaw rek malaaka yi ran ci gannaawam rek waaw di ko di jootal de mu ne yàlla lu tax malaaka yi fu ma taxaw rek ñu ngi taxaw ci sama gannaaw mu ne ko leer ak yonent yàlla Muhammad برهام باء وراء الف ثم هاء